loola taxoon ñu di ko jàmbat lu mat juróomi at ngi ñu daan ko jàmbat jàmbatoon nañ ko ba ay kuréel yu bari dugaloon ci seen loxo ñu bari yitte woon nañ ko waaye suñu borom dogal na man mii dugaloon naa ko sax ci lo ci noppi ma njaay bokkoon na ci ay mébétam waaye musuma ko wax mbay mi bi fi bàyyam jógee ak léegi fan yii nag bi ma ko ko waxaatee la ne ma li may def mooy sama oto bopp bu ma defoon sama oto personnel moom laay jël jox ko Sëñ Tuubaa ñu tàmbalee ko liggéey keroog bi ma ko waxee ma daal di koy yëgal ñi nga xam ne maag ñoom ñoo bokkoon di ci dox sant yàlla ne leen kët lañ doon ñaan suñu borom may nañu ko jox nañu oto ba mu ko indee itam jaar ca man sama place Daaru Xuddoos bëgg sa ñëw jullee fii tàkkusaan ba mu génnee dafa tajeeg sëñ Afee mii ne ko oto bii de dama ko fas yéene jox sëñ Tuubaa kado sëñ Afee dalal ñu te biir waxtaan ak ñun ñu gaaral ko ko ma ne ko ñun day gisoon nañu ay tur yu bari yu ñu tuddee jamono bu ñu ko tuddee ville de nangam day mel ni ville ba bu ñu ko tuddee kor bi bu ko peinturé mu ñuul day nuru day nuru jëfi feneen gis naa ay oto yu ni mel nekk ca makka dañuy faral di weex te gis naa ne nuru na ne weex ak wert mel na ne day loolu couleur bu dëppoo ak ak ak ak bëggug sëriñ bi la xëy na hmm. bu fekkee ne nun lu nu sëñ bi jot a jàngal ak li nu yare xam nañ ca dara hmm. loola ñu rafetlu woon gisoon naa it ne arab ya xëy na ñu ngi ko daan tudde naqlul mawta wala yu mel noonu waaye daanaka moo yóbbu ko dee rek doo dëppoo wut ak teggin ci sunu mbir moo taxoon ñu tudde ko rek Corbillard Touba daal ciy def wata bu yóbbu way daw li si bi ma tëddaatee guddi ba bërki bii une heure du matin ma gisaat te bayit woo xam ne daa mel ne bu sëriñ Touba doon ñaan te mel ne daa dëppoog Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax dinaa mën a wax bayit wa ab lii safinatan bi kullil janna min daaritil minnati yaasal minna loolu kat bu fekkee sëriñ Touba da ko doon ñaan mooy gaal goy da jëm àjjana tey déparé daaru minam te sëriñ Touba di Cheikh Mouhamadul Muntaxa nu jokkoo ak moom soog a tàmbali waxtaan bi ñun suñu xol sedd na suñu xel dal na sëriñ moom sëriñ Abdou baa ngi noonu taalibe bi sëriñ moo ko jëbbal Serigne Touba ngir mu liggéeyal Serigne Touba Serigne Afia oto baa ngi noonu taalib yëpp Serigne Touba ko jëbbal Serigne Touba ngir mu liggéeyal Serigne Touba ànd ko ak bokki bool njabootug Serigne Touba gépp ak taalibe Serigne Touba yëpp fasaale nañ leen ci bu leen amatuñ ci ak bëgg ak defar nag laajoon ngeen ko toog loolu la ñu waxoon Alaaji Mandiaye ànd na maak moom ñu taxawal forage yu mat deux cent millions keroog la fa gëj taxawal nañ jam jumaa yu mat suñ amuñu ci yitte bu ko ko sant jongo soxlaa bu ko abbee bu leen ko neexee bu leen ko ko abal oto Sëriñ Tuubaa boo xam ne yéen ñu mu teg seen loxo yéenay xool nu ngeen ko koy def mbay nee na saa yu paanee moteur ah sëñ Abdoulaye Mbacke wax kaay waaw ruma wax tax te tudduma sëñ Abdoulaye Mbacke moom sëñ Tuubaa Cheikh Sohaïbou Mbacke nga xam ne mooy suñu liñ ci kër gi waaye li ñuy def nii moom lañ ko koy defal waaye oto bi lu mën di paan bu dee pièce la bu soobee yàlla entretien oto bi Babacar nee na engagé na ko lu pièce bu mu paan bu leen ci jëm dara wax leen ko ko bu soobee yàlla dina leen yónnee pièce ba man mi itam ma yëgal ko bokki taalibe yoo xam ne keroog laa leen ko waxoon mooy dépendance gratuit ñoom sëñ Fallou Niass kuréel bi nu mu tuddati sëñ Fallou ah Sëkkulu Salaam ñoom sëñ Saliou leen ko tudde woon màggal gu jot dañuy dépanner oto yu bari keroog laa leen wax ne jox naa leen entretien bi am nañu mécanicien am nañu tôlier am na nañu électricien am nañu euh, euh, euh, ay gonfleur yoo xam dañuy defar ay panu lépp am nañu ko lu oto bi paan jox leen leen ko danañ ko defar ngay laa yonte bi si jubaata duñu leen ci benn dërëm lii nag lu ñuy tàmbalee rek la liggéey baa ngi noonu lii lu tuuti la ci lu bàyyeekoo ci lu bari noo ngi sant yàlla ak yonente bi ak sëñ Tuubaa ndegam am na soxla yàlla dimbale nu ba soxla soo see bàyyi ko ci taalibeem yi gën a xeebu ci taalibe yi fasaale nañ ci murit yëpp noo ngi ñaan daal ñaanuk Sëriñ Tuubaa googee ngeen ñaan ba oto bi loolu yi am ca képp ku oto bi yóbbu mu ak jana képp ku gunge ku ànd ca gunge ba sa borom jéggal la ku ci tàbbal saw ñaq am texek àdduna ak alaxira maa ngi tuub tey jéggalu salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi nuyoo bu baax ko jëmale ci taalibe yëpp waaye di ko tàmbalee ji kuréel bii toog te muy daayiratul Muxaddamatul Xidma sëñ Afi mi jiite ko ak bokkam yi ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa di liggéeyal Seex Muntaxaa jumaa ji ak li ko jege lépp ak ci morgo bii ak barab yi ñaari barab yëpp lépp lu jëm ci diine ci dëkk bi sëñ bi di leen ko taxawloo leen ko saytuloo daayira boobu kenn ku ne xam na leen ci liggéey bi leen sëriñ bi di liggéeyloo lépp luy toppatoo mu diine ci dëkk bi ci yitte jiñ ñu ciy def sellal gi koy sellal ak teg giñ ko teg ca yoon wax waxtu wuñ toogee sëriñ Muntaxa da leen di kañ bu baax léeg-léeg da leen di wax ne yéen di ci pàggute bi sëriñ mi ngeen bokk ndax seen liggéey bi daa mënta ñàkk te xere gii gi koy def ak yitte jii jii ngeen koy defee lu ñu leen fàggul la ndax day li sëriñ bi mënta ñàkk ci liggéey bi loolu rek doy na seere kon buñ toogaatee tey fii sëñ Babacar Jong mii indi liggéey bii sëñ Ahmadou Jong leeral ko léegi te biñ toogee ci jataay bi ñu jottali ko sëriñ bi dafa mel ne kàddu yi sëriñ bi doon wax ba ko ñëpp mënoon dégg du jar dolli benn baat xanaa kon dañ koy jottali ngir ñu ko déggul mën koo dégg rek biñ ko xamalee ne ko sëñ Babacar Jong daa indi ab oto boo xam ne da ko def addi sëriñ Tuubaa teg ko sa loxo andi la ko fii ci Moukhaddamatoul ma te man maa ko wax ma andi ko ci yéen ndax bu ko yóbboon ci sëriñ ba it fii lañ koy andiwaat moo tax ma ne ko na ko andi nu daje fi ma jot liil ko sëriñ bi biñ toogee lan ko laa ko gën a jot la sëriñ fii sëñ Babacar danga dégg na ko yéen yi dana man dégg ngeen la wax dafa sant sëñ Babacar wax ne sant na ko bu baax rafetlu na taxawaayam démb tey door a ñëw rafet la taxawaayam ci nekk waajuram laata fi waajuram di jógee rafet na njort ci xam ne loolee rek lay wéyal waaye kon mi ngi koy xamal liggéey baa ngi noonu na ci góorgóorlu kem kàttanam ndax lii rek mooy li am solo te mooy li waajuram nekkoon na ko wéyal jëmale ko kanam te mi ngi ñaan Sëriñ Tuubaa nangu ko te dimbale ko ba man koo gën a wéyal man ko gën a yaatal dañ waxoon ne mi ngi leen koy dénk waa Muxaddamatul Xidma na ma ne sëñ Afe mu ngi noonu mook bokkam yooyu mu fi nekkal maa ngi leen di dénk oto baay di leen gën a dénkaat liggéey bi ñu tàmb saytul ma ko kon sëñ Afia sëñ bi naan liggéey baa ngi noonu nee na oto baa ngi nii ngeen liggéeyal sëriñ bi delloo ko ci liggéey ba kon loolu li sëñ bi waxoon ñi ko déggutoon mën nañ ko dégg da ci des liggéey baa ngi noonu ni leen sëñ bi doyloo rafetlu ni ngeen koy defee dañuy ñaan su borom dolli leen ci rek ndimbal ci barke sëriñ Touba ba ngeen gën koo mën a saytu man ko gën koo mën a sàmm gën koo mën a matale ni ko liggéey bi yittewoo sëriñ bi li yittewoo ko ni sëriñ Tuubaa yitte woo ko noona yàlla leen suñu borom dimbale ngeen gën ko man salaamaaleykum asalaamaaleykum wa ñu ngi lay delloo am nuyoo ci turu sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne mooy njiitul daayira Muqaddamatul Xidma di nuyu di ziyaara sëriñ Babacar Jong bi ak sëriñ Ahmadou Jong yi nga xam ne ñoom lañu àndal yëpp di nuyoo boobu nag ak siyaara bi ñuy sàkk ci ñoom ñu tegal ñu ko ci loxo Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Souhaïb mi nga xam ne mooy kilifa njabootuk Alxaaji Mandiaye Diong kilifa njabootuk Alxaaji Mandiaye Diong Alxaaji Mandiaye nag ñu taxaw ci tuuti fàttaliku ko ñaanal ko yàlla sunu borom dolli ko njéggal te dolli ko yërmande ndax ku daan taxawu lislaam la ku daan taxawu liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi la ku liggéeyub Sëriñ Tuubaa yi teeloon la ku sonnoon la itam ci jëmmal lislaam ci dëkkub Sëriñ Tuubaa bi bari na fi ay jumaa yoo xam ne defar na ko fi bari na fi ay jàng yoo xam ne defar na ko fi képp ku ko xam ku nekk ci loolu nga ko xam digganteem ak Sëriñ Afee mii ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji doonut lu nëbbu lu ñëpp tegoon seen bët la te bëgg gi mu leen bëggoon ak sopp gi mu leen soppoon lépp barab biñ nekk ak liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba ci barab bii moo ko laltaayoon moo tax seen diggante eggoon na fu nekk kon Serigne mi ngi sàkku ñu teew ñëpp ñu fàttaliku ko ci ñaan ci fatiha ak fukki lixlaas ak benn yéene ko tiyaaba ji bu baax a baax ginnaaw bu loolu jàllee nag Serigne Babacar dañuy sob suñuy kàddu rek euh, ndax ñun amuñu kàddu kàddu gi Serigne Touba moo ko moom te Serigne Touba wax na ba noppi li mu wax mooy euh, gërëm li ak cant yi amoon nga ko ci sa nekk waajur ci sa diggante ak moom te rafet na njort na ci loolu ngay loolu ngay wëyal loolu rek doy na sëkk sëñ Ahmadu ñu ngi lay yóbbante ci mboolem bokk boo xam ne xelam nekkoon na ci lii ba mu ci doon xalaat te sunu bokk yu baax yii nga xam ne ñoo fi teew yàgg cee dox bu dégg bëccëg ñu gis ñu annoncé ko sonn ci lool ngir mu am seen yéene joojee tey jii tàmbali na feeñ te jàpp nañ ne lii jëm kanam ndax ku ne xam ne ne barab bii Euh, yàlloo na lii lool te it yittewoo na ko lool te jaadu na fi itam nag te kenn xamu ko doon lu tax suñ borom denc ko ba nga ni mu di ko door a indi moom mii nag am na ci fat mu tax fatlul mutaqaddim ndax yàlla def na ci moom la tàmbalee waaye nag jàpp nañ ne luy law lay doon te luy gën a yaatu lay doon te dana dem ba fépp fuñ ko fa soxlaa rek mu mën faa taxaw yow nag yow ñi ngi lay ñaanal suñu borom mot li ci sa yéene te defal la ci lu kawe njort liggéey ñépp a ko moom hmm. yoonu murit yëpp ko moom hmm. waaye waa Touba yëpp ko moom hmm. li ko tax a jóg wax nga ko mooy fu way dawul am ñu war koo jëli ci hôpital ba war koo indi ci waaj ci waajukaay bi jekk na ngir doxi loola ku ñu waajale fii ba noppi itam mu war a jàll te amul lu ko jàllale jekk na ci doxi loola waaye nañu xam ne nag ab tàmbali la waaye doyagul ci tàmbali nag ubbi na buntub xéewal ñeel képp ku bëgg xéewal te yàlla dana ko fay itam ñaari pay dana ko fay amal gi ko amal dana ko fay fay ubbi gi mu ubbi mm. liggéey boobu mm. waaye nag ñu ngi ci teewul mm. mbokk yi yitte jooju ngeen amoon di ci dox di ci sonni di ci soññee lii ab soññe la boo xam ne da leen di jàppale ci soññee boobe kon nag képp ku ko seetaan na xam ne itte la ju yaatu am na lu ci tàmbalee am ke ko def yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko sëriñ Tuubaa nangul waaye na ci kenn ku nekk bàyyi xel ne kii bu yóbbu woon kenn lu mu gàtt-gàtt wala tey mbokk faatoo Ndakaaru wala mu faatoo Kawlax mu war koo jëli diggante bi lu gàtt-gàtt danañ ci soxla yeneen yu bare bare bare te loolu nag nun taalibe Sëñ Tuubaa yi la war li waraat fat turu boobu ci ñun la war sëñ Babacar nag def na ci waru garam def na ci tàmbali na ko tàmbali bu am solo boo xam ne yéen ñëpp yéen ci teg seen bët muy bii tànnul bu màggat tànnul bu yàqu dafa seet boo xam moom mii nga xam ne moo ko doon wut ba mu koy wut jënd na ko ci njëgg ko mate ngir doon ci wéyal ab liggéeyam waaye ba mu xam ne sëriñ Tuubaa ba mu xamee ne sëriñ Tuubaa soxla na ko ci barab bi dafa wax ne lépp lu sëriñ Tuubaa soxla man soxlaatuma ko ci sama biiru liggéey sama yitte rek mooy jëppal ko sëriñ Tuubaa ab taalibe bi nag foofu la war a nekk ci loolu la war a góor góorgóorlu kon ñun ñëpp nañ delloo siwaat suñu xel te xam ne lépp lu ñuy soxla rek dafa war a nekk ci ginnaaw soxla sëriñ Tuubaa te it nag mu jëm ku ne am na fa wàll ku nekk am na fa wàll hmm. kenn ku nekk danga fa jaar say bokk danañ fa jaar hmm. te waxtu ba nga fay jaar wala nga fay jaaral ñu fay jaarale sa mbokk hmm. da nga soxla lool ku la ci taxawaay yëpp kon nag képp ku bëgg say taxawaay di mat da ngay jiital ay taxawaay ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu daayirat muqaddamatul xidma di si gërëm mboolem kuréel goo xam ne yaa ngi ci doon yëngu di leen wax ne lii ab soññi la ndax barab yi bari nañ ci dëkk bi te fu ne la ñuy waajale hmm. di indi ci garab yi hmm. waaye fu ne la ñuy waajale itam dafa yóbbu hmm. danañ yóbbu daaru salaam danañ yóbbu daarul mannaan danañ yóbbu gede ak feneen ak feneen ba ca mbusoo bi ca mbàkk te ñoo ñëpp fu nekk dañ ko war di waajal kon sëñ Ahmadou liggéey baa ngi nii day door a tàmbali waaye na jëm kanam yàlla nañu suñu borom dimbale ñu gën koo man te suñu borom barkeel liggéeyu Serigne Babacar mii nga xam ne moo def jëf ji ak liggéey képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ci barkeb Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu